mbokki internet yi dal leen ak jàmm ñëpp xam nañu ne ñu ngi ci mois d'août ku ne mois d'août nag ne euh, taw yu mit yoo xam day wàcc ci Sénégal tax nag na fu ni mën mi daanaka door na ca euh, Kër Massar tax nag parti bi di Pastef ne nañu daal di auditer euh, projet bu gouvernement bi tegoon ngir naka dem canaliser ay canalisation yoo xam ne war nañ koo def foofee na ci duwaanu Kër Massar ginnaaw nag daaw mën mi métti bi fa amoon ñu bëri ñàkk ci seen kër am ñu ci ñàkk seen i bakkan ba président de la république Macky Macky Sall daal di fay demoon ab tukki nemmeeku ngir nag naqalu ni nga xamante ni noonu la ñuy daal di nag caxat caxatee ak nag askan wi sonn gi ñu sonn ci yooyu lee mbënd tax na sa weekend bi ñu génn daanaka nag ci dimanche bi taw yu métti yu wàcc nag ci Dakar yu bëri ci ay dégâts daal di def ca Kër ma Massar tax nag ñu bëri ci ay njaboot seeni habitation ak nag lépp dafa daal di taggatéem bi ba ñu daal di bloqué yéen nag ci ay yoon yoo xamante ni dafa daal di nag indil gàllankoor askan bi nga xam ne fay di yeewoo loolee nag tax nag nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko ak ay gaayam nag ne lii c'est admissible ndax nag Kër Massar bu ñu fàtte ne nouveau département la a bu ñu sukkandikoo ci Alassane Touré la République Macky Sall gouvernement daanaka dañuy piloté rek ci nag xamuñu sax lan mooy nag priorité suñ sukkandikoo ci ñoom yi nga xamante ni moom la taw bi daal di causé nag ca Kër Massar war na tax ñu amal ab audit ñu mu gën a gaawe ñoom ñi di waa Pastef ne nag boobule projet daaw lañu ko génne woon ndekkee si xaalis bu toll ci quinze millions de francs CFA yoo xam ne président de la république Macky Sall dafa sàkkoon ci ñoo daal di koy jagleen mbënn bi bu ñu sukkandikoo ci moom nag ne mbir mi nag faaw ñu daal di koy auditer pour xam millions yi fu mu daal di jaar ndax nag askan ba fay yeewoo ñu ngi daal di am lu leen métti nag di naqar lu baax a baax nelawatuñu te itam population bi nga xam nekkee ca buun ñoom itam ne gouvernement bi ci boppam nag seen i diggé nag dafa a sax daal di di loo xamante ni mënoo ko wala boobu doo ko def loolee nag la ki nga xamante ni nag moom mooy Ousmane Touré nekk nag conseiller foofee nag ak i tamit responsable politique Pastef foofee nag ci diwaan Kër Massar ci dolli ne nag fu mu toll nii nag daanaka ñoom ci li ñu jot a dégg ndax ñu ngi suivre ak seen i gars enquête ak seen i agent yu waa Pastef ay militants yoo xamante ñoom la ñu daal di yebal ñuy suivre naka pas à pas li nga xamante ne moom mooy liggéey bi ñu fa jot a daal di waaye naka ci ni ñu ko daal di naka waxee amul benn avancement boo xam ne gis nañu ko ci lu di gis ki nga xam ne mooy Omar Gueye daal di nag nekk porte parole bu gouvernement bi di daal di nag def nag ay rencontre avec la presse yoo xamante ni nag amul benn njëriñ ci ñëw leen wan ay ouvrage yoo xamante ni ba tey ñu ngi nag ci li nga xamante ni moom mooy construction bi te nag fu mu toll nii waroon na mën a daal di